comme man nekkuma fii di jënd ay ay kolog yooyu sama der laa yor suñu maam lay topp cosaan laa gëm man seen tubaab yooyu toog leen foofu rek maanaam dàq jënd <laughs> mi xanaa lañ fer lañ koy rey non lii moom jarul muusul lii. Eh, eh, mais Pape. mu dee fii lii lan la. mais yaa ko gis de. mu dee fii xanaa lii mooy xaru Inde. monsieur Sy yaay sama xarit boo rayee saxaar may ma aw pooj yaay sama xarit. bàyyil tooñ bàyyil tooñ. génn leen xool observé. ay waay. waaw li ma waroon lenn ma taxawal rek ma waroon.

da ngaa dégg waay. ma jox la 20 kilos bi wala kii. non 5 d'abord 5 5 en attendant moo géré. moo ngi nii de waaw 5 kilos. ay ja mais damay ñëwaat. waaw yaa ngi nii. maa ngi ñëw amal jàmm maa ñëw rek benn. ah ma góor la samay nelaw waay. yow garab bi vraiment. am ndox baa ngi nii sangoñ baa ngi nii. léegi nag reste sage dégg nga naab baa ngi nii waaw boo sonnee nga tëdd si naab bi jàpp sa ñaamur ok. Samba Samba yee. Hmm? doo ma ci xar yi seen ba sama biir nekk. yéen sawu xar. xar yi nekk ci kaw xanaa. mais non. day jënd ay produits yu baax waaye. mais non c'est pas vrai dinañ ah? nii mais non c'est pas vrai mais non lu may xoolee. Cicalastic Color s'applique sur vos terrasses pour protéger vos bâtiments des eaux. Il vous suffit simplement de décaper votre terrasse et d'appliquer deux couches de Cicalastic Color. L'expérience montre que quand on applique du Cicalastic Color sur une boîte en carton et qu'on y verse de l'eau, celui-ci reste parfaitement sec. Avec Cicalastic Color, votre terrasse est belle et protégée.